la am. fan yi la waroon dem Canada pour jàngi. yaa ngi dégg xam nga mm. bu fekkee ne ñoom. yi ñoom dañuy dafa mel ni dañuy dóor doom làkk doom. bu mm-hmm. fekkee ne takk der ñu ngi jàpp suñu doom yi. di tiire euh, di di di ray te dégguñu kenn. soxna si wuyul Birahim wuyul Birahim. soxna si dañ lay dañ lay masawu déjà mais nga baal ma. xam nga lu tax bëgguñu forsement ah? forcément ne ni takk der yi la. Mm-hmm. parce que am na ñu rax takk der yi ndax am na ñun ñu suñu bopp ay image yu ñu gis yoo xam ne xam nga lu tax mu ko waaw mm. dafa am témoin te bi demee wax leen ko dañoo ne carrément on n'avait pas le choix loolu loolu loolu na boobu leer na boobu leer na ci xol mm-hmm. Mm-hmm. loolu na ci xol nga yar nga yar sa doom mu dem ba nga xamante ne yow sa doom mu ngi lay war a jëriñ ñu ñëw rayal la ko ba pare naan la on n'avait pas le choix boobu moom leer na soxna si noo tudd ak foo may woowee mm-hmm. man tur bi dama koy leb sama sama mag moo jur xale bi. d'accord foo foo foo foo fooy wootee fooy wootee. man maa ngi wootee Grand Yoff. Grand Yoff d'accord. Ah, waaw loolu métti na loolu métti na mais je pense que ñu ngi xaar aussi ñu ngi lay masaw le le communiqué du de la police. di wax naan bal yi ñuy tiire suñu doom yi bal réel bal réel ñoom tout le temps dañuy jël naan manifestant yi la manifestant yi. te mhm. dañoo war a duut baaraam ci li nga xam ne moom moom it. c'est important li mu wax c'est xam nga kii. daw na euh, yaram benn instant li mu wax mais euh, à 22 ans mu waroon jàngi ji. waaw xam nga voilà allo allo coupé gul. dama dama dem bay jóg pour jàpp pour dem julli mais bi mu waxee ba pare sama xol nangootu dama tooga. ndeysaan parce que dafa métti. dafa métti ku mu ku mu ku mu ku mu ku mu dalut rek. Mhm. yow mënoo xam li may wax bu ma gisee ñuy ciblé dinaan waaw c'est bien bi mel ni loo xam ne yow dafa mel ni que ne yow nit ki lay ñaawal. ndeysaan. waaw dafa mel ni da ñaawal nit ku jor doom ku nekk boo ko xoolee ci sa bopp. Mhm. da nga xam ne neexul. ki faatu naka la tudd soxna si. Euh, Mamadou Cissé la tudd. Mamadou Cissé ban diwaan la dëkk Mamadou Cissé moom lañ bay Grand Yoff. Grand Yoff ok. waaw d'accord moom lañ bay Grand Yoff. 22 ans 22 ans la am. Mhm. jërëjëf. waaw jaajëf yaakaar naa li wax c'est ñu ngi baax a baax. mais également euh. rappeler que police nationale incha allah dinañ def déclaration à 20h. à 20h mais li tax ma bëgg a appesantir ci propos ndaw si. Mhm. Euh, mu mu waxee ne ni dañu faat doomam. bal réel ba ko. Mhm. il n'avait pas le choix. ci li mu wax. Mhm. ne ni il n'avait pas le choix. Euh, moi j'attends déjà le le le ce point de presse de la police. parce que am na yu ñu tuumaal police. am na tey man loo xam ne man personnellement dama koy tuumaal état du Sénégal. Mhm. mooy lan. Mhm. tey la ñuy wax seize morts. Mhm. mais il y a eu quatorze morts. Ah en deux mille vingt et un. oui je n'ai pas une seule fois yow mi journaliste di xool internet bi di xool journaux yi. fu ñu waxee ni jàpp nañu diw ak diw ak diw. ñoo rey dañoo laale ci. fukki nit ak ñeent yi nga xamee ni faatu nañu 2021 mm-hmm. aujourd'hui si on nous di qu'il y a 16 morts mm -hmm. et jusqu'à aujourd'hui neewuma ba léegi gisuma benn communiqué bu tukkee ci ministre bi ne ni ubbi nañu enquête mm-hmm. ci diw mi ñu faat mm-hmm. ak yooyu xam lu ñu lay wax euh, ñu ngi maasawu wala ñu ngi siggil ndigaale di di yaale nit ñi ak yu ni mel mais il faut nécessairement mm si on veut mu am jàmm surtout mais ñu dalal xelu nit ñi mais nañu am résultat ci loolu ñu jël ki si ligne bi du sii mi ngi laaj autopsie pour que ñu xam ku ci nekk li la rey ou mën a ubbi enquête alo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ku baax ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di delloo ziar bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay bàyyi nga wax sa xalaat. voilà maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Birayim. maa ngi lay ziar ku baax. Eh, di wax ne maanaam Birayim moomu rek mot na exemple. ci li nga xamante ne moom la Sénégal yi bëgg mooy nit ku déggu mhm. ndax euh, état bi dafa am lu bari loo xamante ne dañuy xaar ci moom dañ koy xaar ci moom mhm. li xew d'abord dañuy jaale suñu mbokki sénégalais yi nga xamante ne ñàkk nañ ci seeni doom yépp mhm. mu doon lu méttee méttee méttee méttee euh, man nag euh, conséquences yi nga xamante ne moom la ñu subir ci ci li xew en tant qu'artisan ñi nga xamante ne dañuy taaba taaba ñi nga xamante ne balaa nga mun a joxe dépense sa kër nga xëy ba pare doog a mun a dem ci wéef bi te sa connexion mm-hmm. coupé liggéey bi nga doon taaba taaba loolu mu doon lu métti métti te li ko waral nag mu doon affaire viol mm-hmm. ñu jaay ñu dossier viol ñu koy waxtaane ci grand place yi mm-hmm. ci kër yi ñu xëy a xëy ñu wax lu leneen te mu am lu ëpp priorité yooyu yoo nga xamante ne feeñ na fi te mu ñëw dimbale hmm. muy li nga xam